salaamaaleykum internet euh, Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk di la jox sa wàccuwaay di jaale it comme niñ ko waxee sànq rek euh, population sénégalaise plus précisément waa Tamba waa kafrin waa Mbour waa Saloum ñëpp daal ñu ngi leen di jaale euh, sans doute si kilo doon na dëkk boo xam ne eh, ci jéye bi am eh, ci eh, dimanche bi ci la ñu bëri daal di découvrir dëkk bi dëkk bi nag nekk à six kilomètres de la région de Kaffrine six kilo boobu ci la lu toll ci ñeent fukk doomu aadama lu ko ëpp lu ëpp ñeent fukk doomu aadama seen bakkan wadd ci ab accident bu métti bi nga xam ne am na ci diggante ñaari bus bu jóge woon ak bu jóge fi nga xam ne mooy ndakaaru fi mu toll nii nag euh, réanimation yi bëri na ci hôpital bi am même temps aussi gis nañ koor yi ku ci nekk rek yaa ngi ñëw di jël euh, ki nga xam ne euh, moom mooy sa mbokk pour nga mun kaa jébbal ki nga xam ne mooy suñu boroom ñu leen di ñaanal fi ñu dem mu gën a leen fi ñu jógee prétexte la pour ñi nga xam ne ñu ngi door a dégg dëkk boobu di Sikilo ñu daal def immersion ñëw ci biir dëkk bi ki ñu toogal nag muy tudd Karamoxo Jaabi moom nag moo nekk imaamu eh, dëkk Sikilo dañ koy bàyyi mu présenté wu ak internetu Senego TV ak kawteef ñu daal di dugg ci taarixu dëkk bi ak réalité yi nga xam ne eh, am na fii ci eh, Sikilo imaam ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw buñ la dalalee nuyu la sant la bu baax a baax di leen masaw coono euh, seen teewaay. ñu ngi si kontaan bu baax a baax euh, comme kawteefum nga wax noonu tax ngeen ñëw fii tax tamit ñu bari xam tur Sikilo léegi euh, ñu ngi masaw seen coono bu baax a baax euh, ñu jiitu yàlla jéggal leen te yërëm leen te xaaral na àjjana ñu ci loru tamit yalla saafara leen may leen wér yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon ah, ñu ngi leen di sant si loolu bu baax a baax mbir mi ah kéemaane na trop. doon na jéy joo xam ne ni wax dëgg yàlla képp ku ci teewut euh, ku ko fekkewul rek euh, am na lu des si mbir mi wax dëgg yàlla mbir mi ñun teewee nañ ko euh, def nañ ci suñ këmtalaay kattan waa dëkk bi yëpp a génn ñëw jàpp ci mbir mi ndax mbir mi bu mu amee buñ dëggee yuuxu yu kaay leen wóoloo rek ñun ñëpp ñu daw génn buñ demee wax fekk nañ mbir mi tar na lool waaye fekk ñu dem xool buñ toogee au sapeur balaa ñu leen di xaar ñu ñëw boobu moytu am na koo xam ne sax mun na ci looru fekkee mënoon nga koo sauver ci lañ def suñ euh, kattan noonu dugg si biir di génnee seesi si kaw nit ñi euh, am ñoo xam ne comme sonnaguñu ñu jota leen génnee balaa sapeur ñëw doon taxawaay bu am solo déjà rek euh, Sénégal yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di remercier ci taxawaay boobu parce que xaaru leen sapeur def ngeen acte citoyen bi nga xam ne jullit mënal na ko moromam ñu ñëw rek ci dëkk bi ndaxte bu ñëwee fii ci six kilo doon na dëkk boo xam ne euh, ñi fi nekk mën nañ jàpp ne melting pot la ndaxte ci dëkk bi am na ay bambara am na it ay olof am na aussi ay pël am na ay séeréer wante dafa mel ni cosaani six kilo cosaanu bambara la est-ce que mun ngaa revenir ci cosaanu dëkk bi. ah cosaanu dëkk bi eh, lu ma ci xaw fàttaliku tuuti mun na am tuuti lu ma ci wax cosaanu bam eh, bi cosaanu bambara la ay bambara ñoo fi njëkkoon nekk eh, ak ay turka yooyu ñëpp ay làkkat la yoo xam ne nii comme Guinée Mali lañ jóge ak Burkina yooyu ñoo fi nekkoon. Euh, lu leen fi tax a daje nax mooy dañoo ñëwoon nawetaane ñu bëri dañoo ñëwoon pour nawetaane bu ñëwee nax fekk fi seen i mbokk di fi sànc ku dem euh, boo fi defee nawet boo demaatee nga indaat sa beneen mbokk mu ñëw fi noonu lañ ñëwee di ñëwee noonu daanaka ba dëkk dëkk bi xaw a commencé rëy ndànk si cosaanu dëkk bi noonu la commencé ci wàllu bambara yi ñu ngi ko commencé nax dëkk bi si boppam ñu ngi koy tuddoon dindi buggu waaw mooy comme dëkk doo xam day daje daal nu ma ko mën waaw dox daje nu ma ko mën a waxee si wolof dox daje ñoo fi ñëw samp dëkk bi nekk fi nax euh, di daan seen doole euh, ba mbir mi gën a yaatu rek waaw jullit na bëriwutoon ci jamono jooju jamono jooju na ceddo yi ñoo ci gënoon bëri waaw ceddo yi buñ gën a bëri nekk fii euh, ci ginnaaw loolu suma papa bu mag moo mujjee jóge Guinée ñëw bu mu ñëwee nag moom it comme yu mel noonu dafa ñëw tukki dafa jóge Guinée ñëw tukki ci Sénégal bu mu ñëwee Sénégal nag euh, balaa mu fi ñëw am na dëkk yu bari yu mu xaw a wër ndax jaaroon na ba ay Mbirkilaan dem ba ay Maabo doog wàcc ci fii waaw mu ñëwee fii nag euh, la doog a gis dëkk bi mu ne ma dëkk bi de wax dëgg yàlla sopp naa ko te bëgg naa fi dëkk. waaw ci ginnaaw fekk na am na mbokka yu mu fi fekkoon yoo xam ne ñoom tamit ci gine comme gine lañ jóge woon léegi na bu mu ne man kon maa ngi dem bu ma demee na waaye bëgg naa fi ñëw dëkk ndax fu mu gis naa fu mu war a dëkk dama doon wóor fu ma waroon dëkk gis naa ko léegi léegi ma danaa dem bu soobee yàlla maa ngi ñëwaat ci la dem na doog ñëwaat euh, samp fi kër doog a ñaanaat euh, borom dëkk bi fi njëkkoon nekk ñu koy ne euh, Samba Samba Samba Diop mu ñëw Euh, ñaan ko pàkk mu may ko pàkk mu dëkk fi euh, ñaan ko encore euh, jàkka mu may ko place bi ci ginnaaw fii jàkka baa ngi nii ci ginnaaw ci kër gi mu def ko néegu saket la ko njëkk a def di ci jaamu yàlla samp fii daara di jàngale léegi nag bu mu sampee jàkka bi temps boobu ceddoo yi bëri nañ doole lool waaye yàlla dénkoon na ko Euh, sirru boo xam ne ni wax dëgg yàlla moom xam na nu mu doon jànkontak ñoom ci la toog fii gars yi luñ def mu dindi luñ def mu di mu dindi mu doon ké kaawteew si ñoom ci ñañ dem ba xam ne ñoom fu mu toll nii ah wax dëgg yàlla kii góor gii ñëw moom bàyyi ko daal moo gën di ko attaqué ñu mujj ko bàyyi mu sampu daram di fi jàngale sampu fi euh, jàkka commencé jiite doon imam di julli nit ñi jiite nit xam naa exactement année bi mun ma koo jàpp ndax euh, waaye ndax lu ma mun a jàpp lu ma leen mën a wax ngeen mun ci sukkandiku tuuti bu mu demee encore indi sama papa mooy rakkam bu topp si moom mooy kooku nee na ma cinquante deux la fi ñëw waaw mille cinquante la fi ñëw kon daanaka kooku daa taarix boobu rek laa mën a jàpp ne mun naa ko leeral tuuti waaye moom ci boppam euh, jamono bu mu ñëwee du mu ko mun a leeral waaye 52 daal xam naa sama papa mujjee na man di nettali mu ne moom mag magam yi moro bi yàlla ko fekk fekke moom fa la nekk mu dem jëli ko foofu indi ko fii 52 ñu nekk fi dëkk fii di jaamu yàlla di liggéey. kon mun nañ jàpp ne dëkk bii di Sikilo euh, mun nañ jàpp ne créé nañ ko avant 1952. mun nañ koo jàppee noonu mais tey ci dëkk bi tey ak ay taarixam ba tey ci lañuy ñuy desandi tey sa papa nekku fi yow yaa fi nekk bi nga fi nekkee ba tey lan nga fi gis loo xam ne ci dëkk bi doon na kéemtaan boo xam ne gis nga ko wala dégg nga ko wala jaaxal na la. waaw depuis man moo fi mujjee nekk daanaka sama papa mu ngi wàcc liggéey. 2014 la wàcc ci liggéey waaw avant loolu na fekk na man dan ma doon bàyyi may jiite nit ñi waaye comme demee na wér yi dem mooyoo ko woon noonu waaye na day fekk na ba léegi kaddu gi moo ko yore woon waaye ginnaaw loolu nag de 2014 boobu la wàcc ci liggéey si la gën a euh, la ma mujjee di gën a dënk imam bi ma gën ko di ko jiite waaye boobu ba léegi daanaka ah, sant yàlla ñu ngi koy doxal comme ah, nu mu ñu ko santaye woon xëy na bu fekkee ne sax ñu ko waaye am na loo xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu eh, ngir suñ eh, kemtalaay kattan ngir nu ñu ko dénkee ak nu mu ko doon doxalee ak nu mu rafetee ak nu mu bokkoon ak ñeneen mbokkam yu fi nekk di ko doxalee ñu ngi koy doxalee noonu wax dëgg yàlla waa dëkk bi tamit noonu lañ ko doxale ginnaawam nu ko doon nu ko toppee noonu lañ ma toppee. nuñ ko doon déggalee nuñ moo déggalee nuñ ko doon jàppee noonu ñu jàppale ndax lépp lu jóg bu ma leen ko waxee danañ ci jàpp danañ ci dox danañ ci wax danañ ci def seen kéemtulaay kattan comme góor gi nu mu dundee woon loolu tax na nag wax dëgg yàlla ñuy sant leen ci. waaye nag jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ah, muy ñàkk euh, moyen yoo xam ne nii ñun dañ ci mën a sukkandiku dimbali suñ bopp. ndax euh, nit ki bu fekkee ne yaa ngi place am na yenn moyen boo ko amut euh, da nga bëgg a def dara sa waaye da lay xaw a të euh, ñun nax léeg-léeg fii dañuy am jon jànkonteel yoo xam ne nii alhamdulilah si wàllu nguur gi ñu ci am jànkoot yu bari bari bëri bëri at yi passé nii ñu ngi ci dund sax si wàll comme suñu suuf yi kooku coow loolu xam naa amuñu moyen. pour yegg si rajo ou bien amuñu moyen pour yegg si kaw pour suñu baat mun a yegg si kaw waaye at yi passé yëpp daanaka ren mooy doon ñaari at ou ñettaat ñu ngi si problème suuf yi. nangu suuf. dañoo ñëw nangu suñ suuf si. ñu ñuy béyee ñu ne état gi moo ko moom mu ne état bi moo fi soxla euh, xawma ma euh, pôle mu moo fi soxla pôle te état nu mu ñëwee si suñ commune bi fekkoon fii maire bu fi nekkoon euh, ñun dañoo jékki-jékki rek ñu daanu si suñ kaw ne état moo soxla seeni suuf yi mu toll ni dañ fi bugg a def pôle ñu ne ko waa état bu soxla xanaa dana mun a ñëw euh, informer askan gi boobu ou yow mii maire mun ngaa ñëw di ñu as euh, di waaye ñëw jékki rek ñëw daanu suñ kaw ne nangam kilomètre lañ soxla si seen suuf état moo ko soxla. ma ne ko xëy na ah naa eh, mun naa doon dëgg waaye état du doxalee noonu état balaa mu te jamono jooju indi ñu benn kayit bu ko firndee ñoo xam ne ne état moo moo soxla suuf si ñëw nañ natt ko samp seen i borno ke joxuñu dara joxuñu dara dañuy ah, wax kese dañ ñëwee daal léegi tan ñun ba léegi jox dem nañ ba wone leen fu mu toll ñun de fu mu toll nii xanaa ngeen dem woñ suñ doxo te teg ko suñ ginnaaw ñu xam ne fu mu toll wax dëgg yàlla amatuñ sañ-sañ si si mbir mi ngen doog a jël suuf si waaye ñun ba léegi d'accord ñu ngeen jël seen suuf te amul loo xam ne ni lu firnde la lu wóor la loo xam ne ni état gi moo ko soxla depuis boobu ba léegi ah benn ministre boo xam ne nii koo xam ne Macky Sall moo ko yónni oubien Macky Sall si boppam jóg ñëw si mbir mi dañuy gis ñoom neen ñooy dajale. indi ñëw def seen réunion def seen ndaje waaye mosu ñu gis benn état boo xam ne nii comme président moo ko yónni ou président si boppam kàddoom ñëw ne moom moo soxla suuf si pour def fi pôle loolu wax dëgg yàlla def nañu leent trop te loolu jaxase nañu heure bi ñu toll nii mu def mu doon problème si ñun ndax ëllëg dem nañ bay fu mu toll nii jeune dëkk bi bëgg nañ lotissement si biir dëkk bi pour am na kër yoo xam dañoo xat. ñetti borom kër ñeenti borom juróom benn euh, borom kër ci benn kër xam nga loolu xat na lotissé premier lotissement bi dafa jeex waaye lotissé fu mu toll ni des na léegi sakku nañ ko ci maire bu fi nekkoon pour ñu def lotissement waaye ba léegi nanguñu bu fi mujjee toog ba léegi jubluñu ci te dëkk bi fu mu toll nii dafa war a yaatu borom kër yi am na ñu bëri bëgg nañ génn waaye lotissement amut joxuñu kenn koo xam ne nii fu mu boo demee sax même sa tool nga ne damaa bëgg ngeen ñëw dagg kiyal ma ko pour mu am këyit duñ nangu ngir lan ñoom saa su ne saa yuñ soxla ñëw dagg ci def ko seen soxla loolu tamit def na problème mu ngi nekk si problème dëkk bi bu baax baax te amuñu fuñ koy jooytu comme yàlla dogal na ngeen ñëw ah foog ñu ñambaas ko si mbir mi ngeen yeggali ko fu mu toll nii ñu ngi dugg si eh, ñaareelu at bi. ñaari at yooyu pourquoi waxu leen mbaa ngeen créer collectif ndaxte it seen alal la comme ni nga ko waxee tey dëkk bi ay béykat ñoo fi nekk ñu nar a nangu seen suuf ngeen toog waxu leen dara dafa mel ni da ngeen xaw a nangu. déedéet wax ji saa yu ñu demee ba wax dañuy indi euh, gendarme yi ndax fu mu toll maire buy ñëw day ànd ak gendarme buy ñëw day ànd ak gendarme. yow bu fekkee ne bëgg nga wax loo xam ne nii moom neexu leen dañ lay dañ la arrêté léegi nag xam nga boo fippee foofu dañ dañ lay lor rek lii moo tax ñun tamit wax dëgg yàlla demoon nañ ba bëgg a def presque pour euh, mbir mi dem ci kaw waaye nag loolu yëpp munu amuñu yoon gi te boobaa yow gendarme moo la mën a dimbale encadre la nga mën a def presse mën a def sa ñaxtu dem waxee ko wax sa soxla loolu yëpp ñu baaree ñu ci buñ demee si su préfet mayu ñu yoon fu ñuy fu ñuy defee marche nga dem si préfet mayu la yoon nga nga bëgg a def sa euh, marche gendarme ne la du fi mosu nañ koo def. autorisé nanguñu ko autorise ñu ko. waaw ndax demoon nañ ba euh, Kaffrine FM demoon nañ ba bëgg kiit loolu waaye na gars yi foo ñu ne la foog nga jaar si sous-préfet ou nga jaar si maire yooyu yëpp suñ kayit yi commencé nañ ko bindi waaye nanguñu ko ki loo tax mbir mi mënut a dem si kaw. à part suuf si yan jafe-jafe ngeen amaat ci dëkk bi am ngeen ay poste de santé am ngeen marché am ngeen euh, am ngeen éclairage am ngeen robinet yooyu yëpp est-ce am na fi ndox bi mucc na ayib. ndox ndox bi na dese na bu baax a baax ñun moom gis nga fu mu toon dañoo créer suñu bopp ñun ñoo mujjee cotiser waa dëkk bi gis na uti benn pompe dugal ko ci ten bi fu mu toll nii loolu moo tax sax ndox bi du manqué waaye fu mu toll gis nga ñun depuis daaw lañ tëj suñu robine bi dañ lay indil facture boo xam ne nii da nga fay te doo naan fu ton toll nii 23 heures ngay mën a commencé di root. ba cinq heures de matin ngay doog a mën a yow bu dee ñaari barigo ngay feesal ko ñetti barigo ngay feesal nga mën a am bari ñaari barigo bu loolu doo am ndox bëccëg bi moom doo am ndox loolu tax na ñun ñu mujjee créé suñu teen bi def ci pomp di ci rootaale ndànk-ndànk ngir balaa ndimbal ñëw ndox bi moom dese na bu baax baax. am nañ problème ndox ndax gis nga même fu mu noor gi bu fekkee ne yow nee nga borom kër ga da béy nawet bi dong noor gi yow amoo lenn la yëngatu lu dul xëy na boo foraatu tuuti dem daw dem marché ba jënd ay gàtt ou bien ay ganaar di jaayaat mun a am looy dépensé eh, noor gi mbéy noor doo ko mën a def ndox bi doyut munoo def leneen encore kooku tamit def doon doon na suñ jafe-jafe bu baax a baax dund bi moom fii pour wallu ndox bi moom jafe nañu lool sax. jafe-jafe yi ba tey mu mel ni accident yi bëri na fi bu nekkul ne camion tase naa ak oto bus tase na ak oto bu ndaw mbëkk na garab wala it seen jur yi euh, fël nañ leen ci tali bi. waaw loolu la njëkkoon wax ci départ bi ma ne ko loolu yëpp daanaka saytu bi des na ci wàllu nguur gi ndax population bi dem na ba commencé naa yokk léegi. te fu mu toll ñun saa su nekk dañuy soxla tali bi te saa su nekk gis nga yoon gi boo demee ba si yoon bi ñun amoon eh, rang-rang bi nii loolu lañ doon jaar daanaka ba Kaffrine duñ laal tali bi waaye gis nga dégg daanaka projet yi dem nañ ba nangu tabax nañ ba tabax si yoon gi fu mu toll ñun fu pour fu mu toll bul jàll dem Kaffrine problème lay doon ndax baare nañ yoon bi peesage bi baare na yoon bi defaru yow peesage bi ñëw nañ tabax eh, tabax peesage bi si kaw yoon bi ñun foofu lañ doon teggee moytu tali bi. yow fu mu toll nii boo tabaxee da nga war a xalli beneen yoon boo xam ne ne sareet waa sareet bi fa lay jaare waaye nag defuñu loolu dañuy ñëw baare jël yoon bi te duñ la xallil yoon boo waxee boo demee si maire wax mu ne danaa wax ak ñoom da toog a toog doo dégg dara boo demee su préfet wax ak moom danaa ne danaa wax ak ñoom da nga toog doo gis dara lii tamit doon na suñ jafe yoo xam ne nii moo tax accident bi gën a bëri te yoon bi tamit xat na lool yoon bi dafa xat lool lool sax. ndax ñaari oto bu ñuy daje sax daanaka boo xoolee léegi sax yow da def ne ñaari camions yi bu ñuy romante léegi ñu fëlanti kon yokku talibi desoon des na bu baax a baax te tali bi tamit defar bi dafa am kamb yoo xam ne nii si biir ki Sékousse yi bëri na oto yoo xam ne nii seeni chargement day bëri chargement yooyu nag tax na dana gaaw a indi jéye bu baax a baax ndax bis bi loolu moo waral jéye bi lu mu chargé woon si kaw moo ëpp. pono bi mu tëjee mënut a maîtriser boppam te buntu dëkk bi bu ñuy dimbaleen defal ñu ci duudaan pour ngir suñ jur yi di mën a mucc ak suñuy njaboot gi dana baax trop ndax oto yi léeg moom lu ñuy sant bu ñuy jógee ci àll àll bi noonu lañ koy jàll jàllee si tali bi fi ñoom duñ xool ne maa ngi yegg si arrêt xaaral ma def ndànk xëy na mën naa daje jàll ou bien mën naa daje jur buy jàdd ndax suñuy jur yi fu mu toll nii luñ leen di rey bëri na amuñu fuñ koy waxee. dañuy rey sa jur boo waxee ñu ne la yóbbu yoon wax dëgg yàlla nawet bi noo noor gi nag yi ciy dee fas yi ciy dee mbaam yi ciy dee kenn xamul mu toll loolu tamit nekk na jafe-jafe joo xam ne ci eh, dëkk bi kooku tamit ñu ngi koy jooytu kuñ ci mën a dimbale tamit soxla nañ ko waaye doo moom buñ ko amoon dana wàññi xëy na dana wàññi eh, kii bi eh, doole oto yi tuuti avant dernière question rek ñu dugg ci benn ci benn pax ci benn euh, euh, kàddu yoo xam ne dañu ko dënk bi nekkee euh, sur le terrain ndaxte it bi ñëwee sur le lieu de l'accident am na ku ñu ne fii di six kilo ba Sagna accident yi bëri na wante accident yi lu mu bëri bëri bu ñu xoolee si kilo boo dugg see ci garab bi ak fi accident bi am problème garab boobu lan la ndaxte am na benn thèse buñ fa avancé. waaw problème garab bi de yàgg nañ ko wax euh, waaye nax jamono buñ toll nii xam nga nit ñi dañuy dundee loo xam ne nii euh, gëmuñu maam yi gëmoon tax na tamit loraange yu bëri di ñuy dal ndax ñun dañuy ñëw ne maam yi ñu nekkoon dañoo yeewut suñu ñu nekkoon bidaa la léegi nag bidaa bu mag bula mag. boo ko naree suufeel da ngay loru rek ndax na xëy na euh, mag yu fi nekkoon daanu dañ doon gini sarax gaa waaye nax kenn ku nekk euh, doo ne da ngay def population o waa dëkk bi ou bien waaye nag kenn ku nekk foo wéet da nga def sarax ndax kooku sama waajur yu góor mus na ma ko di nettali mu ne ko dëkk bi amoon na jamono moom tax na sax lu bari jóge na fi ndax dëkk bi amoon na jamono mënoo ñemee dox mini mini bu xasee jot mënoo ñemee dox ndax jamono yooyu bëriwoon na ay rab yoo xam ne ni ñoom dañoo bëriwoon ci biir dëkk bi waaye nag moom xëy na ay jaar-jaaram tax na loolu yu bari wàññeeku ah, ndax booba tamit mu loolu léeg dëkk bi amul ñàkkut comme wolof lu wax maam ndax cosaan ndax ñàkkut ndax borom tuur ñoo fi nekkoon. comme ay ceddo ñoo fi nekkoon ñàkkul maam waaye nag ñooñu dafa am euh, luñ lu luñ warloo waaye léegi nag boo leen ko waxee nag yow fu mu toll nii dañuy defee ne yow comme da ngaa bëgg baat ou bien da bëgg daraja te fekk du loolu waaye nag yow na yow moom léeg mun ngaa wéet comme sa waajur am na lu mu la dënk am na lu mu la wax ci mbiru cosaan yooyu saa yu jotee da nga wéet di ci ñaan suñu borom ngir lu bëri yàlla dimbali ñu ci waaye loolu tamit daanaka des na. lu war saa su nekk ah, di ci def ñaan ngir yàlla dimbale ñu ah mbir mi wàññeeku waaye bu loolu diggante boobu bëri na problème bu baax a baax ndax pro jëye yuy am daanaka si diggante boobu la dem ci kaw ah, boo xoolee diggante accident buy am jëlee ko diggante boobu daal dem saaña waa kay dem saaña daanaka diggante boobu daal problème yu bari fa la ñuy am waaw waaye ci dëkk bi ci garab bi ba dem saaña. dem saaña. bëri na diggante boobu moom bëri na fa jiyee trop te jiyee bu ci am place boobu du tuuti ndax amoon na benn at boo xam ne oto tamit mos na faa daanu camion bu chargé gerte kooku tamit fekkee ne minébar yaa ngi si kaw ñu bëri dañoo loru oto gi dafa mujj daanu seen kaw ñi dagg seen tànk ñi bëri na daal ñoo xam ne nii day indi problème bu baax côté boobu loolu nax léegi nit ñi pour ñu gëm ko comme yu kaay mel ni ñoo tax ñu mën a gëm ne kii dañ ci war a def ñaan jamono saa su nekk ngir yàlla dimbale ñu lu mel ni di gëj am waa dëkk bi dese nañ ko gëm de ndax lan la cosaan yu fi nekkoon ñu ñu bëri dañoo tuxu ñu bëri faatu nañ ñaanaka yu bees ñoo ñëw ñu bees yi ñëw na ñooñu fekk ñu jamono jooju te boo leen ko waxee léegi ñoom duñ ko gëm waaw ñooñu gëm nañ ko waaw ñooñu ndax moom ay taalibe am na taalibe yoo xam ne ñoo ngi fii waaw ñoom seen papa dund waaye doom yaa ngi fi ba léegi ñoom gëm nañ ko xam nañ ko euh, li dëkk bi doon dundee ñoom nag duñ ko caaxaane ñoom waaw te ñooñu yëpp ay ay ciy def ci waa fii lañ nekk waaw. Senego TV ak Kawtef kontaan nañ ci waxtaan bi. waaw man tamit kontaan naa bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla seen ñëw bi moom. Euh, dañ ce kontaan bu baax a baax nañu ngi leen di sant bu baax a baax ndax tax na euh, wax dëgg yàlla suñ turu dëkk bi tamit yegg na fu nekk waaye ndax loolu it ak seen oyof la ak seen yitte xam ne doomi aadama ju nekk ah ñu mën a dimbali fu mu toll nii ndax saa su ne dañuy dëgg ñu leen di lore leen di sonal si ay mbir te yéenaay suñu loxo yéenaay suñu tànk boo gisee ñun yëpp lu bari te ñu yeewu ci xam ko ma tëdd sama néeg fii une jot. ma xam lu xew ci réew mi yéen yéenaa ko waral yéen a ngi ci jànkuwanteel coono ju nekk ñu ngi leen ci masu coono bu baax a baax di leen ñaanal yàlla eh, yàlla may leen taxaw bu baax a baax te may leen ci wér eh, may leen ci ndam bu baax a baax te wax dëgg la kontaan nañ bu baax a baax asalaamaaleykum wa